marhaban concert u casserole ak klaxon yu ñu nemeeku ni ki démb ci réew mi moom la mboolem yéen kaay yi xëyee ni ki tey jilee l'info nañu Ousmane Sonko ak Yewwi Askan Wi daal dina ñuy am ndam ci mbir bu nu ci région yi gis nga ay population yu génn ngir wane seeni bopp jëmale ko ci boobule concert u casserole waaye itam ci ay klaxon ngir man cee profité waale itam naqarlu dund gu métti bu ñu nemeeku ci réew mi ci ay njëg yu cher ñàkkum xëy dib chômage waaye itam liberté yu ñuy salfaañe ci biir réew mi yéen kaay Vox Populi dëggal xibaar bi sénégalais yi ni ki démb daal nañu génn ak i klaxon ci ndigalu seen chef d'orchestre mi di Ousmane Sonko mi nga xamante ne moo xàll yoon ci kërama yéeni kayu enquête itam di xam leen ni ni ki démb bari ay sénégalais yu génn fii ci ndakaaru ak ci biir région yi ngir fësal seeni bopp ci biir le concertu casserole ak i klaxon yu Ousmane Sonko njiital Pastef doon sakku ci ñooma yéeni kay bi nañu doxalin bu nu mel daal nay am solo li koy firndeel moo dine bëri ci sénégalais gisuñ ci genn yàkkute yéene moom mu ngi sampub laaj ne ndaxam bi la concert casserole ak itamit dafay firndeel ab lajjite di ba échec ko ci ab résistance li waral bu ñu sukkandikoo ci suñu moo di ne Ousmane ak yi anandoom yu far ci opposition bi nga xamante ne dañoo wone woon seen bopp ba nguur gi ragal bu ñu di tënku ci ay concert casserole ak i klaxon loole nag dafay firndeel ni daal deltu ci ginnaaw bu ñu i sénégalais yu Sonko ci concertu casserole yi ndaxte daal dinañ koy jëfee ci ay quartiers yu bëri ci Ndakaaru ak ci biir région yi bu dee nag lu ñel vuvuzela ya nga xamante ne mouvance présidentielle bi ñoo waxoon ni moom la ñuy tontoo opposition bi yéen kaay bés bi le jour mu ngi xamle ni kenn déggu leen li ñel élection ak report gi yéen kaay bés bi le jour mu ngi xamle ni présidence de la république daat nay weddi xibaar yu ñu daal di fësal ne ab bataaxal daat nay bàyyeekoo ci union européenne ci nguur gi ngir mu deltu ci ginnaaw ci les élections daal di koy dàkk dogu ngir amal yile élection législative fanweeri fan ak benn ci weerum sulet xalaatu ci deltu ci ginnaaw benn yoon li koy firndeel moo dine démb ci ndajab conseil des ministres ya moom président Macky daat nay wone waat bëgg-bëggam ak dogom ngir ñu amal ay élection législative ci ay anam yu jaar yoon bu ñu sukkandikoo ci Walfadjri quotidien waral suñu naataango yi nañu élection législative yi dinañ ko amal fanweeri fan ak benn ci weeru mu sulet ndaxte président Macky Sall mu ngi woy di dumóoyu ñi nga xamee dañoo yëkkati kaddu di sakku ci moom ngir mu ràndal yile élection ngir ñu mën fay tey tension ba nga xamante ne moo ne ci biir réew mi ndar keepekook yéen kaay la soleil mi amal bu gëstu ci Sadio Mané mi xaatim ab contrat bu yees ci Bayern benn club mi ne ci Allemagne suñu naatango yi ne moom Sadio Mané daat nay fësal ay bëgg-bëggam jàngeen jë